Rajiv, Rajiv, salut, tëju na de waay. Salut, tëju na booy. reculer si sa loxo bay sa loxo bi sa loxo bi waaye doo leen bàyyi kii mu wax fii jee ana ana ana batterie ana ana kii bi yéen poy ba ngi sa dama ma lool une interview. yow xam ko jéeg. non mais amul fi nga wax ak man. mais. kon dafa bañ dafa bañ. ñu doon dégg ci dégg ëmb lan lañ ci mën a xam. rumeur yi ñu doon dégg ci dégg ah. am ñu ni Sonko dala ni Adji Sarr ana bi am na ñu wax ni Sonko dala laaj aji Sarr ana bi. Eh Gabriel Garé donc bàyyi kii mu wax bàyyi ko mu wax gars yéen a ngi gàncax gars maître oui maître Dialika maître. je ne sais pas en on dit qu'Adji Sarr euh, a piqué une crise a eu un malaise c'est faux on est toujours dans la manipulation mais pour confronter des positions il faudrait que tout le monde accepte de parler c'est ça la confrontation mais quand il ne pas dire que moi je ne parle pas je ne réponds pas aux questions du procureur aux questions des avocats de la partie civile, mais ça fausse l'esprit de la confrontation. Maintenant, vu la tournure... Des... Non, même, euh, il refuse de répondre à, tout, à, toutes les questions, lui. À quelques questions, quelques. Alors, s'il vous plaît, vu la tournure des choses, maintenant, quelle est la prochaine étape, s'il vous plaît Bon, on attend, le juge va décider, est-ce qu'on va devant le tribunal Je crois que là-bas, devant le tribunal, tout le monde va exhiber ses preuves. La confrontation il eh, aura à la barre du tribunal normalement. mais avocat Sonko waaw mais de toutes les façons ils peuvent raconter tout ce qu'ils veulent mais on verra devant le tribunal les gens vous avez des preuves mais. ça je le dire je ne pas violer les secrets du dossier. Donc, à partir de ce moment, la conséquence en droit, c'est de dire simplement aujourd'hui que le juge d'instruction doit son courage à deux mains et d'y donner un non-lieu. Pour nous, c'est la condition systématique. Parce qu'aujourd'hui, lorsqu'une femme dit que j'ai été violée, et que vous soyez devant le magistrat instructeur, lui là qui est appelé à renvoyer ou qui est appelé à prendre une décision de non-lieu. Vous n'êtes pas en mesure de rapporter votre preuve et vous nous dites que vous attendez à l'audience pour rapporter votre preuve. Ça veut dire qu'aujourd'hui, parfois, il faut être sérieux. Soit on fait du droit ou on ne fait pas du droit. Or, le droit aujourd'hui voulait qu'elle rapporte ses preuves. Elle n'a rapporté aucune preuve. Aucune preuve. Est-ce euh, Donc, quel est le sens de l'instruction si c'est prématuré, je me demande quel est le sens l'instruction. Le juge d'instruction, quel est son but C'est d'instruire à charge et à décharge, de voir s'il a des éléments de preuve pour envoyer la personne ou un non-lieu. Si on dit qu'on ne donne pas ces devant le juge c'est parce qu'on se de la justice. Passez-moi le terme. Ça, on attendra de voir avec la décision du juge d'instruction. C'est notre souhait. notre souhait.

ay avocam nag wax nañu mais aussi Adji Sarr wax na am na sax ku ko abordé ne ko aji Sarr ana ëmb bi mu ne mësul wax ne ëmb na ci la ko Gabriel kan daal di ko écarté yóbbu ko mais ay avocats ñoo gën a xóotal ci confrontation bi parce que maître Dialy kan bokk ci avocat am nee na confrontation amu fa parce que confrontation bala moo am. Sonko day nangu répondre ay question procureur de la République nangu répondre question am mais aussi waroon na répondre avocat de la défense avant les avocats de Adji Sarr mais aussi nangul tontu ci seen i question kon maître Dialikane di avocat euh, Adji Sarr nee na kon mën na jàpp ne confrontation amu fa mais aussi beneen camp bi nga xam ne ni ñooy défendre Ousmane Sonko peut-être muy maître Bamba Cissé ñoom lu leen jaaxal nee nañu mooy Adji Sarr dafa doon taxaw fu ne di wax ne daal bu ñëwee lépp dina leer ndax dafa yàqamti sax confrontation bi et mais nee nañ tey lu leen jaaxal mooy silence u Adji Sarr parce que nee na yëyul sax yàbbi ci lu bëri te indiwul benn preuve teg ko ci table bi li nga xam ne ni mën na accabler Ousmane Sonko nee na kon tegul dara ci table doyen des juges kon les avocats de Ousmane Sonko lu ñu wax mooy ne lenn rek daal la mbir mi mun a aboutir mooy un non-lieu parce que tamit Adji Sarr tey tegul dara ci table doyen des juges kon mbir mi loolu lañ ci mën a jàpp mbir mi daanu na 11h lañ leen convoqué woon ñëw nañu 11h donc à 20h. génn nañu kon loolu la ñu mën a jàpp les avocats d'Ousmane Sonko ont réagi les avocats d'Adji Sarr ont réagi maintenant le dernier mot revient au doyen des juges va-t-il envoyer l'affaire en chambre criminelle pour un jugement on ne sait pas va-t-il décerner un non on ne sait pas c'est une grosse c'est un gros point d'interrogation on vous remercie Rajiv, Rajiv, sëñ bi tëju na de waay. sëñ bi tëju na booy. sa loxo booy sa loxo bi sa loxo bi. waaye doo leen bàyyi kii mu wax fii. jërëjëf ana ana ana batterie ana ana kii bi. gaa yaa ngi may gàcc. yow xam nga ko jéy. waale. non mais amul fi wax ak man. mais. kon tey daal yéen ñaar jokkalante wala ay kàddu. non dafa bañ dafa bañ dafa bañ. Adji Sarr rumeur yi ñu doon dégg ci dégg ëmb lan mën a xam. rumeur yi maître El Hadj man papa tontu naa loolu yëpp. Ah. am ñu ni Sonko dala ni ana biir am na ñu wax ni Sonko dala laaj ana biir bi. Gabriel. Eh, Gabriel Gane. donc bàyyi wax. bàyyi ko mu wax. gars a ngi gàncax gi. maître